na ñëpp dellu ginnaaw na ñëpp dellu ginnaaw maa leen arrière leen arrière ngeen féete woon day joor wala càmmoñ digg bi ñëpp puus bu kenn ci digg na ñëpp puus délégué Amar mérité lii délégué mérité lii nit ku baax ku am yar ku musa woote na la la war ci sa bis na ko ca nanu ko sagal bu nu yàq bisam bi nanu ko sagal presse bépp nañ tas ñii nekk ndeyjoor ñii nekk càmmoñ ñu xàll digg bi mu féex nanu xàll digg bi firti kenn war ko taxaw kenn kenn na ñëpp toog kenn lu yegg suuf dem leen dem leen dem leen grand grand yegg leen suuf avancé leen avancé leen waaw na yegg suuf duy ba arrière arrière arrière tout le monde ma tulee ma tulee xaaral ma tulee mais ma tuuti may ma xaaral xaaral ñu arrangé fii ñëpp toog ma jox la nga wéyale sa programme mais ñëpp yegg suuf waaw mais ñëpp yegg suuf mais ñëpp yegg suuf honorable député délégué Amar buy jël soxna son excellence président jàmm réew mi bàyyi lépp lu mu jàppoon ñoom teew def na li ko war nit nag président xam na li ko war te defu ko dog ku yàlla ba ku la yàlla booleel nga ànd moom rek la war ci yow jëm ci moom doxe nga ko waxe nga ko jëfe ko ba mu mat sëkk encore une fois ñun ñi la topp ñoo la ameel bor waaye yow ni ñu jiitu wàccu nga ak ñëpp ma bëgg nag la loo xam ne ci ñun bés kenn war ko yàq kenn war koo sorxo sorxo ndax délégué nit ku baax la as gor la jàmbaar la te kenn mënu ko ci liggéey bii ñu liggéeyal président Waly Ballago Seck kon nanu ko sagal ñu déglu suma papa suma xarit papa Kéba Seck mi ngi fi teew def une forte délégation ngir kóllëreem ak ki nga xam ne mooy délégué Amar waaye suma rek suma xarit borom Zénith le 29 juin naanaan bu mag bi si di jóg ñu ngi ci mbooloo mi teew ñoom wuy si frère am ñoom wuy si xaritam ànd ak délégation suba teel production yëpp def ngeen lu rafet yàlla yàlla fay ñëw Alaaji Baara Diouf imama moo perte de valeur loo dund doyul monsieur le ministre jërëjëfati monsieur le ministre Amady Badiane jërëjëfati monsieur le ministre Youssou Dieng jërëjëfati monsieur le ministre Toumani Ndiaye monsieur le ministre Ousmane Thiam jërëjëfati avec tous les membres du délégation Jàmmi Réew mi DJ Yves merci beaucoup merci beaucoup Magor merci beaucoup waa suba teel képp tàbbee guñu nag ci wax ji danañ wax waaye ca kanam damay bàyyi xaali mbay ak ñi xam ne ñooy waaram daan waaw ma ñëw euh, euh, ma ñëw délégué dama bëgg ñëpp toog rek ba pare ndax ñun bu ñu ñëwee fii di tëgg ci xew bi ginnaaw yàlla ak yonent bi patron moo tax ku ko jàpp ñu jàpp la ku ko bëgg ñu bëgg la ku ko fonk ñu fonk la may tuuti ma ni mariage si may sa bigge may sa bigge maan aji naar mi ci ndool jarkanes mi ci làmbaay yàlla yàlla guddal sa fan ndax nag ku tax nga gën koo warut a gën boo ko gisee ne ko jërëjëf ñun dukkoon rek lañ la deseel jërëjëf defal nga nu lu ne yóbbu nga nu fu ne am nan tara ma ñëw booy ma ñëwaay ma ñëw ma ñëw lu ne yàlla jox nañ ko ci teraanga joo xam ne mi ngi ko jaara say loxo te këttoo dara Youssou man xaali ak Raam daal gépp suñu mag toog ni di Amady Badiane ñun buñ la gisee nga toog dañ ñaan la jërëjëf bala ñoo nuyu kenn di wax ak kenn ndax nag lu ñu tax a rek yow yaa ànd ak ñun di ñu dimbali yamoo ci ñun ci ay kasare déedéet teraanga ju la yàlla jox rek bokk nga ko ñun xiifuñu maruñu raflewuñu boo ñëwee Ramadaan nga xool ña fa toog ñëpp ak ña fa nekk ku ci nekk rek fa nga ko jëlee ak fa nga ko yóbbu ak fa nga ko teg tey jii ma ngay dimbali ay doomu aadama yow dimbali woo personne àdduna ngay dimbali. Marias yi may sa digg may sa digg maar aji naar mi ci ndóor njëkk des mi ci làmbaay yi dëgg la yow góor nga garmi nga ah man sël man xaali man bu ma la gisee rek a la jërëjëf danga ma dimbali may dimbali ci biir famille di ci jàppale ne ci biir famille di ci jàppale ñun koo jàpp rek ñu jàpp ko dama la koy wax tey de sii mi toog di sama suma su ma ko nuyoo yaa tax tey ma nuyu ko man nii laa def li tax ma def nii xam nga mooy lan man ku la bëgg ma bëgg ko ku la fonk ma fonk ko bi mu ñëwee sa kër seet si la nga siq ak moom teraanga jooju tey laa naan ko rakk na nga def yàlla yàlla guddal sa fan yàlla defal la jàmm bis bi nga jëm yàlla na ci yàlla def jàmm ni mu ko ñaanal ci borom xolom bi set bii barke Seydina Muhammad noonu la ñu koy ñaanalee ñun ñii yàlla nga ko gañe yàlla nga fa am ndam yàlla na la fa yàlla defal xéwal yu baawaan ci barke Serigne Bamba ndax nag moo ko ñaan ma gis ma ñaan ko waaw yaa ko ñaan ma gis rek ma ñaan ko waaw kon nag yal na yàlla guddal sa fan liñ koy wax ci biir géew bi buñ koy def di ko lébu ci ndey ak bàyyi mooy tax waaye ci juddu lay doon juddu nag gamu doon nag nit kay ànd ak yow may tax nga gën koo wërte gën nee ko jërëjëf jërëjëf mi si diggi maare yaa ma doog a ñëw may ma tuuti mooy ñaaw man de dama laa soxloo délégué moo ma woo téléphone bilaay wali ballago faram mi ci na tango mi ci mballaay wali dana mangal mi ci ndeer ku sopp Serigne Saliou Mbacké loxo may xool ma woy wane la doomu yaayu dumane waale balla go doomu nday délégué délégué délégué délégué délégué mu sëriñ Saaliw borom ñuurul dumane waawaawaay jaagay sa yaay jaagay sa yaay bare imama sede mamma way sama rakk ji tey ma way la wane la sama rakk ji am samba di ko way la mu ale samba mu ale samba ale bañ na mu ale samba ale bañ Elaa Sidi Diop da nga tuddi guus xaw ma droit gisuma la woone waawa i de su gisee damay yox sax su may way wali ballaago su ma koy way sax du ma osé du ma osé Maria Simu Keba bayu Maria Simu may sa bige may maar jum na ma def gongar ga dem ba jum lambay lambay lambay lambay lambay lambay lambay wawoy bari wali tumani tumani tumani tumani tumani tumani borongala nangani jodei sidei ay samara kanjani yaay raki wali ballago ma yasi mese bije mese bije ma wayla wane lang laay lay la la yaay sama doom yaay wali ni la laay lay la sama doom yaay di laay yaa ngi way man jaaxal nga ma de ma ñëw ma ñëw man jaaxal nga ma nag ma ñëw ma ñëw seex booy c'est c'est grave c'est grave wala da nga grave de fan yii li ngay way moom man ko war comprendre wala dama tiit de ñëpp a tiit ñëpp a tiit